aousubillah min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu duñu seetaan del siwaat nañ seen émission bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax ak actu tey ji ñu fas yéene dellu siwaat ànd ak yéen ñu ñaanal Serigne Touba Cheikh Mamadul Muntaxa sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal alxaaji Abdul Fatah Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadal yàlla may ko fan wu gudd lool ak ngërëmal Serigne Fallilou di ñaanal bu baax baax sëriñ daam atta mbakke xalifa seex ibrahima di ñaan ibnu xaadim rasul suñu borom may ko fan mu gudd ak wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu matalee ko mu ko soobee mbokk yi tey ñu bëgg a waxtaane gis ngeen jafe-jafe yi ak xat-xat yi ñu doon dund fan yi walla weer yi ba léegi xañ na yàlla mooy teggi di woyofal waaye ba léegi jeexagul tàkk ci àdduna bi jeexagul tàkk muy corona bi fi am nga xam ne balaa bu wàcc la jàngoro waaye liñ ci bëgg waxtaan tey jàngat ko ci rek mooy gis nañ ne sunum koom dem na sunu xam-xam lu ëpp naaw na loola lépp nag nan la def ba mu dellusiwaat ak lu ko jiitu nan lañ war a taxawal sunu toogaay rawatina jullit jullit de ku nekk xam na ne yàq du ay mbiram yonante bi sallallahu alayhi dafa ay yàq am na ku mas fekk muy jàpp mu ne ko yaa ngi yàq ndox mi mu ne ko jàpp ba ci yàq mu ne ko boo nekkoon ci taxu di géej gi di jàppi tamit boo yàqee da xam ne yàq la tudd kon don lim ci bëgg rek mooy nit ki di sakkanal looloo nag lim ci jublu mooy nit ku nekk nag di liggéey di yàq lim lay jural mooy saa boo demee ba liggéey ba taxaw nga am problème jàpp naa ne ñu baree bari yeewu nañ ci fan yi ñu dund dund yu jafe-jafe yi dund yooyu lu ko waral mooy fekk na kenn dencut ndax Sénégal xamul denc xamul sakkanal xamul dara lu mu am rekk jàpp na ne ci tey la ko war a yemale te nit ki dafa war di programmer ak dundam ak dundam dund googu sunu borom daf nu fee bàyyi ngir ñu liggéeyal àdduna ba mel ni duñ fi jóge waaye ñu liggéeyal àllaaxira ba jàpp ne suba leen fiy jóge yonent bi sallallahu alayhi nee na bu ñu doon ëf buuftu bi nga yor benn tàndarma boo war a jëmbat na ko jëmbat bala noo ëf buuftu bi xam na ne tàndarma googu de doo ko fi lekk du fi màgg du fi def dara waaye nit ki dañ ko bind ngir mu liggéey dañ koo bind ngir mu nekk ci àdduna ngir man fee nekk mën a nekk ci àdduna nag mooy faaw nga liggéey kersawu na lool wala metti na lool ñu laaj diw sàngam ne ko looy liggéey mu ne man awma lu ma liggéey wala defuma dara rawatina sun Sénégal gii nga xam ne boo laajee nit looy liggéey mu ne damay business wala damay yëngu ci affaire taaba taaba du la wax benn métier bu leer te yonent bi sallallahu salaam sàmm na jaay na commerce na yonent yàlla Moussa sàmm na yonent yàlla Daawuda ab tëgg la yonent yàlla Nuux ab ministre la woon kon moo lay xamal ne la yonent yooyu nga xam ne ba ci borom xam-xam yi sax dangay dégg koo xamante nii leen koy dàkkantale mooy diw sàngam ab liggéeykat diw sàngam ab nàngamkat bu ko defee liggéey boobu li tax mooy nga mën fee nekk waaye mën a nekk googu nag du caagee nag danga fi sax waaye nga nekk fi noo xamante ni doo yàq Sénégal ku nekk xam na ne ni ñuy liggéey ak ni ñuy yàqee wute na lool nit koo xamante ni danga liggéey ñaar fukki weer walla ñett ñaar fukki weer ak ñaar da ko liggéey yàq ko ci benn bis ak ceet ñëw nga jël lépp def ko ci ngénte ñëw nga jël lépp def ko ci mariage ñëw nga jël lépp def ko ci yeneeni xew-xew yi am dëj ñëw nga jël lépp def ko ci xoolal tey li lay wan yàq rek demal ci dëj yi tey dëj boo dem da ngay dégg ñu ne rey nañ juróomi nag rey nañ fukki nag nag won fa rey suur na nangami kiloy ceeb nangami nangam lu cay des ceeb yooyu yépp ñoo gën a xamandoo aaday senegal ñi koy lekk ñu néew a néew néew la nàkk yan fay def sax am na ci ñoo xam ne duñ jël ci nàkk yi loolu lépp doon yàq te moo ne waajooju di bi mu tëddee xañ na feebar ordonnance wéradi wala nangam kenn koo xamante ni dindi na alalam wala mu def ko ci amul waaye bisu sarax sa nga dégg bu ñu tàggee rek nit ne maa def nangam daal di wàcce ñaari saaku ceeb wala tonu ceeb wala nangam joxe ko te moo ne waa ji de mi ngi tëdd lu yàgg loo xamante ni ordonnance sax amu diw sàngam ñu ne ko yow lan tudde doom ji mu daal di jël xaalis bu bari ñëwaat ne nan yokk cin yi nan yokk mbana yi tàmbaliwaat xaalis bépp waajoo xamante ni ab xale bu ndaw la bu tàmbali dugg àddunaam takk jabaram céetam gépp mu def ko ci benn jigéen bu noppee daal di tàmbaliwaat ñaari fan ñett lay tàmbali ndaw si ne ko indi dépasse wala dama bëgg jënd nangam wala nangam mu tàmbali naa ko sa laaj bi dafa bari lu ko waral mooy jàpp na ne organisé wul benn te boo demee ci ñi organiser xale bi bu muy laata kii daanaka compte banque am sax dañ ko ciy dugalal dara ngir saa bu màggee war a xam ban niir la war a am ndax yow da ngaa war a liggéey ngir woccal fi sa doom du caaga ne da ko fi waccal sa doom de waaye da ngay kii fi mu toll bari na am jafe-jafe lool xoolal xale bu ndaw boo xam ne dafa juddu fekkul dara mu am ko moo war a fayal jàng métier war a fekk papam yàlla mu tere mu faatu mu war a yor yaayam ay rakkam yu jigéen yooyu yëpp. bi muy dikk papaam woccu fa kër sax kër te papaam jooju ko doone amu ko waaye toppoon jërëjëf yeeg na ngeen def ak yeeg jaajëf yeeg sàmba nga àllaar yeeg yooyu yépp ba tax na li ko waroon sax fu mu fàggul njabootam ñu dëkk fa sa fàgguwu ko loolu lu tiis la xale boobu war a judd war a nekk jàngi métier war a nekk lu mu tabaxee këram war a takk ab seetam war a yor waajuram wu góor war a yor ay waajuram wu jigéen war a yor ay mbokkam xoolal étape yooyu muy jaar étape yooyu étape nit jaar ci ba jàll ba réussir xoolal tey li ngay gis tey boo demoon ci dëkk yi da ngay dem gis benn jigéen buy jaay boppam nga ne ko waa yow li ngay def ni mu bone yow xale bu toll yow wala nangam mu ne man damaa amul sama yaay daa gaañu sama baay gaañu wala sama nàngam donte loolu du aw lay du lay boo ñàkkoon ba mu leer na la da ngaa ñàkk bay dagg sa yaram sax kenn du la sant nga def lu araam waaye ñi ëpp ñëpp ca la ñuy wu jaar foofu kon mbokk yi crise bii ñu dab. li nu ci mën a jël ne ñaar la ñaari solution mooy liggéey ak jàng barki démb rek maa ngi koy xalaat ma ne man de dama jàppoon ne nit ñi danoo waroon surtout ñi dëkk Touba danoo waroon kër gu nekk lu mu néew ne war naa am ñetti garab yu nu fa jëmbat war nañ faa jëmbat ak mango war faa jëmbat lingom war faa jëngal darkase seetal yooyu bu fekkee yàlla dogal na mu màgg ci biir kër gi darkase ju màgg di meññ guddi bëccëg mango gu meññ di màng di di di di di meññ guddi ak bëccëg lingom goo xam ne day meññ guddi ak bëccëg kooku mën naa yor kër gi boo demoon ci kër gi li lay wax liggéey am na ñoo xam ne benn plan naana naana benn plan bu ñuy roosee lan def seen ruq benn ruq ruq boobu bu yàlla dogalee bu buñ ko roosee daggee jaay ko bala noo dikkaat mu mat deux semaine ñu ñëw jaay si waat bis bu nekk daanaka mën nañ cee yor ci seen biir kër rawatina xoolal lii am nga xam ne nit ñi ni ñuy yàqe tey am na koo xamante ni miir lay jënd bu yaatu boo xam ne lu mu ko doyee mooy day jënd miir bi bu ñu demee ba jamono xaalis am mu jaayaat ko keneen jëndaat miir bi toogaat mu amaat mu jaay ko au lieu ñu def fa benn sardin wala ñu def fa benn poulailler boo xam bis bu nekk ña nga cay liggéey dara même bu fa miir ba nekkee di def dara am na lu ñuy liggéey ci biir loo xam ma ngay amal njariñ askan wa wala mu amal kii mais noonu lañ koy upp awal fii nga jëm yoonu ngaabu wala saate da ngay gis ku miire rek bàyyi wala héliport lu mu fay xaar prix bu baax lay xaar mu jaay ko bu ko jaayee diw sàngam diw sàngam moom day xaaraat prix bu baax mu jaay ko te pourtant yooyu yëpp ay poulailler mënoon na faa am sardin mënoon na faa am wala nangam xoola tey lingom tey ni muy dem seer ba seer nga xam ne lingom boo ko jiwoon ci Tuubaa gi nangu na fi ci sa biir kër doom di ko roose nga roose ko ba mu màgg mais kenn amaana lu ñu fay def garabu niima xañ na bëri nu njariñ gisuñu njariñam ñun Sénégal xamuñu ko waaye darkase boo ko defoon lingom boo ko defoon li nga ci mën a am di ci dépassu ci kër gi kenn xamut yàlla boo def benn plan naana ñun ay ay ay niti baykat lan ay nit yi baykat lan te réew moo gis mu développé maanaam bayee ko développé bay ak jàng xoolal tey suñ réew mii tey nee nañ pétrole feeñ na tey pétrole bi dinañ dem ba nga xam ne ñeneen ñu jëre bitim réew ñooy dikk yore pétrole bi bu fekkoon ne téeméer la juróom-ñeent fukki ya ak juróom yi ñoo koy moom Sénégal mi moom pétrole bi moom moom juróom yi ndax amuñu ay ars borom xam-xam yu war a yor pétrole heure bii lu tee ñu jël suñu xale yi ñu jàng ji pétrole nan lañ koy yore nan lañ koy seeree ci am réew nan lañ koy yore mais fii la ñuy bàyyi ñépp ñu toog léegi bu ñu demee tey li la koy wax jëlaatal beneen exemple boobu sori na xoolal médecin yi xoolal tey waa Touba gi ñu ne waa Touba ci kanam tabax na nangam bu Matlaboul Fawzayni tabax na nangam hôpital demal ci hôpital yi kenn ko cosaanoo Touba doo ko fa gis ndax amuñu danoo am matériel di tabax mais amuñu borom xam-xam na xale yi jàngi médecine jàngi médecine yore chef yi seere ko nan jàng beneen xam-xam bu dagan ñu jàng ko seere seeni mbir mais bu fekkee yow na ngay tabax sab kii ba mu noppi nga jël ab hôpital nga jox ko koo xamante ni bokku leen diine sax bokku leen dara moom moo ko yor ndax moo yor xam yow tabax rek xottu kii rek nga am la fay dawal kii ba nag loola nga war a créer kon mbokk yi réew mi dellu nan ci kii li ñuy delluwaat nan delluwaat ci àll yi ñu bay ñoo xam ne réew mi surtout problème bi am bekkoor bii am ci at mi li ko mën a développer mooy bayiwaat demal ci dëkk tubaab yi dañuy dem am na ci kaw ci kaw étage yi nii def nañ ci ay kii yoo xamante ni daanaka ay tool la ci biir boo seetloo internet bi xool ko di nga gis tool yoo xamante ni du nekk ci suuf ci kaw lay nekk ñu cay bay diggante pom ak mandarin nangam ak nangam demal Espagne gi tey boo demoon ña fa nekk ñépp di muuru muuru ca tool ya la nekk di witt kamaate di witt ay mandarin di witt ay pom te pourtant suñ réew mi bu ñu fi doon bay loolu lépp ñu man ko kon mbokk yi yaakaar naa waxtu wi jot na waaye li ñu bëgg a wax daal mooy am na crise li ñu fiy jëlee mooy bu amul boromi xam-xam duñ ci génn bu nu amut ay liggéeykat du ñu ci génn kon nan former suñ ndaw ñi ñun lu bari passé na ci ñun mag ñi lu bari passé na ci ñoom kon nan former xale yi ba nu seere surtout réewu Sénégal pétrole bi ñu a feeñ na fi léegi au lieu état Sénégal jël ay nangami xale ne leen dem leen ngeen jàngi nu ñuy yore pétrole bu nu dikkee ñooñu mën a toog seere seenam réew waaye jël ay tubaab suuf si xolate Sénégal suuf sépp dañ lay wax ne étranger ya ko moom lu tax dañ leen koo jox ñu yor xam di ko développé. ñun nag dina mujj bu nu màggee suñu doom yi war a ñëwaat danoo war a dëkk doom yooyu bu fekkee war nanoo dëkk fekkul ñu bàyyi leen benn espace ndox mi ñuy yàq sax suñu ko yàqee dinañ dem ba am duñ am ndox gis nga réew yu danoo wax ne euh, at yi danoo wax ne guerre bi daan am ci pétrole guerre ndox a koy gën a metti guerre bi nar a am ci ndox Touba gi ñaata kon ñoo fi nekk ñoo xam amuñu ndox màggal Touba ba léegi koor gi noonu lan defee boo demee ci réew yi fu ci nekk ci Sénégal dañ lay wax ne la ban gëjee naan ndox xamul kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp os euh, ñu ngi àndoon ak sëñ Diouf moo nekkoon ci caméraman bi ak ki nga xam ne mooy réaliser émission bi di Thierno euh, Faye ki nga xam ne moo ko doon monte mooy Cheikh Gueye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.